mësul dégg doomu Cees nekk ci biti tumu mu di ko dégg te saafarawu ko semaine bii passé rek mu nga woon Ziguinchor fa la mujje wut fa ay logement wut ay mat laa fayal xale yi lu ñu war a dunde moo dem toppatoo ko taxawu ko ba mu mat ba doomi Cees yi koo xam ne yaa ngi daan fanaan ci mbedd wala ñu lay fa tey am na am na foo dëkk bu dee wàllu lekk boo doon tiiti tey loolu jeex na ne sa yo xey di nga ndékki di nga di nga reer ba mu doone xale ba tey dafa amé ndoxum city moko tré jang yaram bi yëpp dafa génn dafa def ay cicatrices biko yaay ji waxé dama ne ko da ngay ba bis ba ba président ñew ñu wan ko ko incha allahu naan suko gisé yalla dina ci def gis nga yaram bi ni melni ni lay génn ci yaram bi ni tanki tamit ni la mel waaw mafaal me biñ ko ko waxee it boole woon nañ ak centre social bi bañ demoon ba defar kayit yi ba pare kayit yi yaayam waxoon naa ko ne ko na nga ko préparé nga indi ko suñ ñëwee dañ jël kayit yi jox ko président bu ko defee loo ko ci mën a dimbale xale bi fi mu doon nii bu moroom yi dee jàngi day jooy rek jàngatul defatul dara waaw kayit yëpp defar nañ ko mu ngi nii waaw mu ngoog xale bi incha allah rabbi euh, ma faa jëloon note bugg naa à partir de semaine prochaine am naa sama benn xarit bu xam ne c'est un professeur agrégé en dermatologue naa yóbbu xale bi jël ko en charge. képp koo xam Habib Niang lu ko xam mooy si wàllu politique sociale développement a jege askan bi si loolu dama décidé woon yàlla def moo tax ma ne macha allah kër gi fii nii gox bi am na ñaan moo tax ma décidé may leen benn consultation bu xam ne ñaari fan mosuma ko def biir Thiès may leen consultation sambi may leen consultation dimanche consultation ma ne ko garab yëpp ñëw na même verre yu xam ne maanaam ñii nga xam ne dañu am problème bët fexe naa ba yàlla def na jàmm verre yëpp jóge na bitim réew ñëw na mu ngi sama bureau fii. lu mot ñaari lu mot ñetti téeméeru ñeenti téeméeru verre ñëw na mu ngi sama bureau gannaaw su bu soobee yàlla dina ñëw si wàll tamit jigéen ñi tamit dinañ def consultation en gynécologie comme noonu nga xam ne yàgg na yàgg naa yàgg mosoon nañ ko def si wàll école jaxaaw defoon nañ ko ba yàlla def si jàmm am nañu jigéen ñu xam ne maanaam si si consultation bi ñu gisee seen jàngoro yaakaar naa ne du ñàkk du am ñu fi toog gis nañu ko man aussi damay def si damay am suivi na ñenn xam ne wallaahi yàlla rek ma mu tiim bu leen consulté woon rek musiba day am ba actuellement ba fi may toll nii maa leen jël en charge à la clinique parce que bu ñu ko deful baaxul si ñoom parce que gis nañu aussi ay ay ay kaa yu xam ne yu xaw a kéemaane tuuti. ñun suñu wax dafa dafa dafa néew jëf nañu xam. ni ngi ci walu formation jigen ñi eh, président moo war a wax motam bu kenn wax li ngi ci walu formation jeunesse bi ci walu bourse yi kérok rek ma ngi wax motax bima démé université Cheikh Anta Diop gis na fa lu mo téeméer étudiant xamné ma kër ma alaaj nañ dëkk dama gis condition ñu nekké condition yu xaw mané man indi sama lox def na ko Dakar def na ko Saint-Louis def na ko Bambay def na ko Sor man ñor duma tok nekk dans de bonnes situations bàyyi sama ay mbokku jullit joomu Cees nekk sans situation xam c'est pas normal c'est pas sérieux yàlla dafa dafa nag ñun duñu waxtu dañu jëf si loolu yaakaar naa ni président de mutuelle de santé mu ngi ñu toog naa njëkk de benn geste naa leen may téeméeru carnet mutuelle de santé nu ngi ko noté carnet bu nekk dinañ la jël at at bu xam ne di nga faju doo fay man nag côté boobu laay remercier le président Macky

macha tamit ngeen jégué ko bu baax baax ci walu formation comme nul xamé ci jigéñ ñi ni ngi ci walu formation bari bëri. dañu bëgg nek candidat de la mairie de la zone nord moy lan d'abord dañu bëgg jégué askan bi yag na ko wax tam koy waxat ñun dañu bëgg doon maire bu xamné du fi nek di dajale ay souf dañu bëgg doon maire bu xamné tay tey salaire am saa du ko laal salaire bi fu mu jëm ci walu social la jëm loolu la mom noté len ko say fu mu dem mom lay wax bëgg na ñu yaakaar na né président ñi ngi ëllëg bu ma defee bu ma waxul nii ne Habib Niang li nga wax loo waxeet la man du ma wax di dellu ginnaaw.